asalaamaaleykum gars yi asalaamaaleykum gars yi ca suba ba tey defu ma vidéo Barsaka damaa demoon réunion de famille waa kër Adji Sarr ñoo doon réunion mu nekk réunion de lan fa waxtaane nag mooy kii di Adji Sarr moom lañ bëgg a jébbal may ko soxna ñeenteel maître El Hadj Diouf kon maître El Hadj Diouf jàppal ne mën nga jël Adji Sarr comme ñeenteel deuxième point bi mooy sénégalais yi am na lu leen métti ñi sant Sarr ñoom it danoo réunion nee nañ buñ sañoon Adji Sarr du sant Sarr Diouf lay sant comme nga yow lañ koy may léegi sans seen sant bi nga def gonnoome ko Adji Diouf maître El Hadj Diouf li lay wax ci réseaux sociaux yi ñaaw na trop say doom di ko gis ak say nawle dafa ñaaw trop yow nag yëgaloo sa yaram dara dara sëfu yaa ngi mel ne mattum dëj dara sëful sa yaram amoo xol amoo xol bu la waxee ngay xëy weer ak sa bu ñu tasaaroo yi ngay mel ne ku nu sexal bomb xool ko nel bu leer bi di nuroog projecteur stade Léopold Sédar Senghor man daal yow da nga maa jaaxal maître El Hadj Diouf xool ko nel bi di nuroog tefesu yara man ku lay génnee étifor laa yërëm man sa coiffure bi lay génneel étifor kooku laa yërëm yow fan la lay jaar lii ku ko wax